am naa lu war a tax man sama bopp ma porté ko plainte yóbbu ko ci yoon. moom Macky Sall. waaw muy lan. ndax lu mu la def. Ah. loolu Sonko xam na ko. non lu mu la def mu ngi ne xam lan la. dafa toog ci sama xaalis. moom Macky Sall. waaw ah, loolu wax naa ko fi waxati ko fi. ci sommet euh, some bi fi mujjoon. sommet aussi. waaw. 2008 damaa waaw damaa indi ay oto pour rois yi ak chef d'État ñu waa Wade réceptionné leen boobu moom xamatuma ministre lan la. ñaata oto. dégg léegi bi nga euh, motoon na ñeent fukki oto ñeent fukki oto yoo xam ne benn benn bi rek day jar deux cent millions gën jaa néew. yaa ci def sa xaalis yow. waaw facturé ko. makine bu ñu ma jox xaalis bi parce que bu ñu ma ko joxee. Euh, damay utiliser alal jooju contre moom. xanaa contrat état nga moom. ah xanaa contrat contrat état nga signé. dama ne. Hmm. Euh, président euh, Ablaye Wade moom moo ko laaj ci kaaw urgence. urgence absolue. amul kayit amul contrat ah kay am na parce que réception nañ ko yëpp am na. même yéen seen télé am nañ image yi fi ñu koy réception ñun waxuñ ne loolu amul waxuñ ne wóorul kenn waxul loolu. Hmm. dafa ne buñ ko ko jox. teg ci tànkam. nga mere ko ci waaw yow keroog bi may wax ak Macky. ci euh, jëm ñaajo xanaa loo wax ja mosoo maa jox dara. mosoo maa defal dara dégg naa ko. waaw loolu ki koy wax. Euh, olof nag ci ci xaritoo. danañ ko wax ci loo ne. waaye xarit mooy ki nga xarool dara ki nga bokkal dara. ki nga xam ne bu bu Macky. Mhm. nekk na fukki at ak ñaar benn yoon la ma soro sawar wax naa ko ko ci kanam jonn yàlla na ko yàlla yërëm ma ne ko jonn mi moom fa indi jë jom jonn yëngal boppam ñetti yoon mosuma am audience buñ dajee rek dëj bu mu ñëw la ci famille bi nuyu na alors am nangam jeex na. mais rien jam ñaajo eh, eh, yaa yaa ngi ko doon tressé ay laurier bi ngay wax Macky Famaak. Oh, woon jam ñaajo. Kaolack la waaye dégg nañ lool. ba waaye xam nga loola dafa xuloo la. ah bon. ah si xuloo ba ma kii mu dagg ma. non non non Ahmed waroon ko waxee noonu. loolu mi ngi mooy bi ngay wax yoonu Kaolack bi les trois cent mètres euh, kilomètres. waaw xaw ma trois cent mètres. les les euh, neuf cent mètres waaw. waaw trois cent mètres. Hmm. waaw boo xam ne ba léegi defalu defaruñu seen benn goudron wax dafa ñëw ci euh, le centre. mais mais léegi mandat d'arrêt bu ñu wax. contre xam nga foofu dafa indi xuloo. Hmm. ba ñu fa jógee général bi dafa ma wax ne ma. Uh-huh. on ne parle pas comme ça un chef d'État. ma ne ko si un chef d'État n'est pas un homme. je ne lui parlerai pas ainsi. Si elle est un mortel, euh, euh, la donne change. après après Macky digganteem ak Amadou Ba. Amadou Ba Amadou Ba. Amadou Ba après mu am.